vous êtes un assisard et on sent beaucoup de nostalgie euh, parce que on on on, re, on revoit euh, ay ay ay ay traces des assises nationales assises yi est-ce que c'est toujours euh, d'actualité est-ce que ce n'est pas hors contexte on dirait que yéen ñi koy porte ñëpp euh, vous êtes plus dans la dans la <laughs> dans la nostalgie qu'autre chose euh, 2008 ay conclusions yu ñu arrêté 2008 ak ni àddina bi di doxee ak Sénégal mutation yi mu am yëpp est-ce que jël sa programme euh, jël une bonne partie des conclusions des assises calqué ko ci euh, amul déphasage non maanaam li am solo mooy yan xalaat ñoo fa ñoo fa jógee yan xalaat xam nga tey boo nee juste liberté boo ko xewal Sénégal tey xam nañu. xam nañu njëriñ bi tey xam nañu njëriñ bi. pourtant fa la jógee ci assise assise la ah. jógee donc dafa am ay propositions yoo xam ni. ba léegi askanu Sénégal ñu koy laaj d'ailleurs la justice tu l'as dit ci wàllu yemale wàllu àtte ñu bëri dañu am cette perception la que la justice war nañu ko mën a améliorer xalaat yooyu aussi ci ci assise la jógee donc assise vraiment faut nu ñu koy wax di <laughs> faut pas jeter le le le bébé et l'eau du bain vraiment am na xalaat yu am solo yoo xam ne ba léegi tey Sénégal soxla nañ ko. ci ci ci yeneen wàll boo xoolee tey euh, am na une proposition bu ñu def également pour la diaspora diaspora tey bu jël le conseil de sénégalais de de l' extérieur le conseil des sénégalais à l' extérieur nekk kuréel boo xam ne mooy saytu les préoccupations de notre communauté de la diaspora te kooku tey boo ko xoolee lu solo la <laughs> c' est pas pour rien que depuis 2012 la diaspora est dans l' opposition ça veut dire que ñoom seen préoccupation maanaam seen seen ay mébét li ñuy dund baax nañu am kuréel goo xam ne moo leen di jege di ko mën a indi pour que ñu koy saytoo comme ni ñuy saytoo ñu nekk waa Sénégal tey boo jëlee par exemple la diaspora toujours euh, xoolal la di ñu tuddee la question de protections sociale et des retraites des pensions de retraite maanaam boo liggéey tey euh, nekk France di fa liggéey ba sa retraite jot daanaka boo deful gymnastique di def di bàggante Paris Dakar di yooyu war nañu ko mën rediscuter waat ak justement avec nos partenaires pour que justement ki liggéey ba retraité mën na ñibbi këram fële au Fouta ou bien fële à tranquillement et percevoir sa retraite je vois pas pourquoi on doit l'obliger mu toog dans le pays justement dans son pays d'accueil donc yooyu c'est des c'est des réformes yoo xam ne ou des négociations yoo xam ne il faut ñu defal ko suñu mbokk yi nekk dans la diaspora